kon gars yi mu mel ni kon nag a ah, dañu dugaat ba tey si waxtaan rek ak suñu papa Souleymane fay ku ne dig na li mu wax sànq yaakaar naa ne ca way wa Lamine. Mm-hmm. Hmm? nee na nga dem songu ji wala sa maam yi sang la. Mm-hmm. Lamine kon dellu loora ma dem ak yaay. wala nga wala mu sanguñu sax. waaw ko micro bi bu ko neexee. waaw nga sanguñu. nga sanguñu. am na am na ay mbóot. am na ay bagages. musuma uh-huh. ko wax nag. Ah. juróom-ñaari socc yow. juróom-ñaari socc yu bokkul borom. def ko ci ndox koy takk juróom-ñaar soo ci bokkul boroom xam nga dafa yomb dafa jafe dafa jafe maanaam forom bi gis socc bu socc bu bu wadd rek nga for muy denc téye ko muy juróom-ñaar mais am na bu gën a gaaw te juróom-ñaari nit loolu juróom-ñaari socc ku nekk socc jox la benn la benn la maanaam juróom-ñaari gémmiñ ñu bokkul borom. kooku ay ay ay ay sarax yoo xam ne dañ koy dañ koy baaxee doomu aadama yi waxuma rek mbër sax mais nit normal nii fa baax man ah, yàlla eh, am na xam-xam yu mu la may yoo xam ne day jëriñ doomu aadama war ko war a na ci war a laa biir juróom-ñaari guro yu weex boo ne ko xorom ak suukar hmm. takk suufu njëganaay hmm. nga yeewoo ñeent xam nga ñaan dafa bari ñaan fa am ñaari façon ñaan dàq li nga ragal xëcc li nga ñeme am nga droit muslu yàlla na yàlla muslu ci lii ñu koy def. est-ce que def juróom ñaari guro ñu weex tàll ak sukkar ak xorom ak pièce cent franc toujours am pièce cent franc bu ci nekk yooyu ay xam-xam yoo xam naturel nii pour euh, pas pour bëre mais te dund nii naturellement rek entre doomu aadama nii rek. ay fara day fànqal lu bari. barke Sëñ Tuubaa. aje ah, ko laajoon wala wañ ko ko laajoon. loolu am na solo non Eumeu Sène kay dafa am comme dafa am préparateur mystique bu bees. waaw Eumeu léegi xam naa xaar ci prochain combat yi ñu xool nag. Eumeu bu bees waaw. waaw ah non jotaay bi moom kii li fi wax nii yëpp tey. non jotaay bi moom wax dëgg yàlla. Ah. yàgg maa xam a ngi mbaq mbaq bàyyi bu la waxal. laaj bu garaaw a nekk mbaq. bu la neexee ne mbaq la. waaw yàgg naa ko yor ci wut ay picc ak ay xati ay patax xëcc papa kii ma maa la ko wax kenn mës a gis di acca Babacar nag temps temps comme temps bi daf ñu waaj a xoj foog amu seen tàggatoo après nag ñu ñëw ci Sénégal teelu leen mm-hmm. ndax yaakaar naa ne am na cadeau bu may gis fee xaw ma ëmma seen ko moom xaw ma yow koy war a jox. ku moom cadeau bi. damay ma seete ëmma. bi xel na may bu loxo neen. waaw ko benn cadeau. sama benn photo. mu ko ko may rek nii. ana cadeau bi. andi leen cadeau bi. cadeau baa ngi noonu. Euh, jox nañ ko financeur mbaq. pour ñu contre affaire mystique yooyu. Hmm. Ah? Hmm. ñëwee ci mbër. andi benn kado boo xam ne xamul lu ci ne. wóorul. ah. wóorul ah. man ma ubbil ko sama moo moo ma gënal. ñu ngi fay rek ñu ngi fay fa bi ñoom mën nañ koo def ndànk ndànk sans toroxal ko ñun ñun dañoo yàkkamti ne dañ koy xotti. waaw ah, bañ a xotti parfois sax. ñoom ndànk la ñuy def xoolal. ñoom ndànk lañ koy yëy. même emballage bi duñ ko yàq quoi. ok dañ koy jël ndànk waaw ndànk ndànk. ah. bisimilah. wolof ne ndànk ndànk jàpp golo si ñaay. trop waaw après di ko soxlawaat ni ah na. beneen la na wàcc tuuti rek voilà. am am. mais Lamine am. daa mel ni li mbégte mbégte la de ah. ki mooy islaam chrétien. parce que man dama gis nga sol si kurus ak ak croix. waaw parce aar kurus day aar croix seetaan ñemewu ko. Ah. bon damay témoigner rek que man euh, jullit laa mais dama gëm Christ Jésus waaw ma boole ñaari mais man Baye Fall laa xam nañ ko man may ko. sama doom ëmma mënu ma ñëw ci këram loxo neen yàlla na ko yàlla musal ci musiba ak balaa la fa ko cat waaw. jërëjëf. aywa ëmma soobee yàlla ah. soobee yàlla ah toogaat. ah yàlla ah, ah? toogaat. loolu leer na Babacar. am na solo ëmma ban impression nga si lii kado bi rafet bi photo bi ak croix bi mu si takk ak yooyu ak li mu ci wax dialogue islamo-chrétien. waa di ci am contentement bu rëy ci am mbégte du koy sant nag du koy sant sant bu bu bu màgg bu rëy waa di am mbégte parce que tey lii ma defal yombul. ba tey ñu bëgg lii bëri nañ ñu ko bëgg bëri nañ trop tey déplacement bi mu def ñëw seet si doomam bégal ko nekk na jour boo xam ni bis du ko gën a rëy ci man bis bu waa am roi des arènes sax bis bii moom ko daaxal waaw kontaan naa trop. macha kontaan naa trop trop trop trop. Lansper tamit gis naa ko si dënn. sa bi secret la mbóot la mbóot la secret la te sama papa Souleymane boo ko xoolee nii rek di nga xam ni boo amee xel tuuti di nga xam ni. borom mbir waaw borom la am na lu ko yàlla may waaw ci boo amee seetlu. mu dox ci diggante Fayeen ak Ngomen. jërëjëf. Ah, <laughs> maa ko moo xam ne ku bëgg cere la. waaw daa bëgg cere ngom la sant de. mbuum bu am gang. waay waay wax nga waaw mbuum mu cere ju neex. ak keccax. cere ay gang. waa ndeysaan. Eh, laaxu buy. laaxu buy waaw. ma bëgg nga cere gang daa mel ni de paa bi xam na la de. cere mooy sàcc séeréer sàcc. waaw ah, sàcc fajak wala ngóorbaan fajak. ah macha allah. Eh, ah. man dama bëgg ah, xam man sportif la mm-hmm. eh, j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, waaw son poids maximum c'est soixante quinze kilos mais tey dama posé wu ma gis ay cinquante cinq. Hmm. dama bëgg dugg sal mais pas pour chaîner mais pour. nekk forme. nekkaat tuuti poids parce que boo demee Europe. Euh, soo morom di dañuy daw dañuy footing dañuy sport mais Sénégal fii cinquante ans re ñu gaaree. <laughs> ma Europe dañuy gis sama moromu yaay buy dawee. sama moromu maam buy dawee. mais fii boo solo jógin daw rek waa koñ bi retaan la nga rus rek delluwaat toogaat. loolu baaxul quoi. loolu baaxul am na mu tàggatoo. waaw ah, ñu bu ñu bàyyi sport dafa baax ci mag. mag la gën a baax ci xale. ci xale waaw. muy euh, sa morom yi maam amoo ah, j'ai soixante-dix ans. am na solo. kii dégg ci suuf ne sa nangu Lamine puusal ko micro bi wala wala balaa. non foog ëmm seen tàggatoo pare looy tàggoo balaa papa di duggaat ñun tëjal ñu. sa digg doole non looy tàggatoo. non la ñu andil. waaw ah, am ah, contentement ah. bu rëy di dolli di santaat bu baax a baax bu wér di gërëm. ki ci mel ni Pape Moussa mag di lanjan di ko di nuyu Khady Trasa bu baax cent pour cent ah. suma xarit suma ñaareel boobu nga xam ni may xaritu jëkkëram di nuyu xuja bu baax di nuyu grand Pape Diallo bu baax a baax a baax di nuyu docteur Makumba. waaw maa ngi koy nuyu tam aussi bu baax a baax a baax a baax. suñu docteur la kooku. di leen nuyu tam aussi bu baax. ci jotaay bi ak teewaay bi. di wax ni wax ji lu ci dëng rek ñu xam ni doomu aadama lañ li ci jub na xam ne yàlla suñu boroom la di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñu fekkee ay koor yu bare bëri bëri kenn bañ a manqué. amiin di nuyu fans yi bu baax a baax a baax lii nag fans yi laa ko may ah jotaay bii ma toog ak suma papa suma fans suma royukaay maa ngi ko baaxee fans yëpp. ah di ko baaxe axlu làmb yëpp nag ah di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. Mm-hmm. li fi xew fan yi paase yàlla bu mu xewaat. balaa yi fi ñëw yàlla ñu ci yàlla suñ borom musal. senegal réew réew réew diine la réew jàmm la mm-hmm. Aïda Samb tamit. maa ngi koy jaale lu ñu bokk muy suma xarit di sama soppee di nit bu baax maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla may ko jàmm fi mu bëgg yegg ci carrière maa ngi koy ñaanal mu yeggale ko ak ak tey bakkanam ah ñu bañ am benn ndog ndok di di waxaat ni Sénégal réewu jàmm la dafa am kilifa yi. liggéey bu bu ñu fi liggéeyal. Mhm. nañ ko sàmm mooy ñu rafetal rafetal kàddu yi bu baax a baax a baax parce que am na yenn kàddu yoo xam ne baaxowul Sénégal Sénégal dafa baaxoo ñuy ormal mag Sénégal dafa baaxoo ñu joxante cër joxante respect mais am na yenn kàddu yoo xam ne rafetul suñu doom yi màgg di koy dégg kon ñoom bu ñu màggee lan la ñuy ñëw te lu lu ñëw rek. sor xale yi ñoo ci gën a ñoo ci gën a dugg à cent pour cent ñu xam ne njaboot lañu am ñu ngi màgg te tamit aussi suñu suñu suñu maanaam lu ñu yàlla suñu borom may buñ ko buñ ko asaal buñ ko yàq waaw beneen bi mooy dëkk bi ñoo ko mën a defar président mu def lépp muy setal dëkk bi ku lekk bañ a sànni ku romb sax pax wala dara boo ko mënee suul suul ko. ñu defaraat jukko yi daal bu baax a baax a baax te xam ne am na loo xam ne du ma ne du ma lim benn dëkk mais am na lu bari loo xam ne am na dëkk yu ko bëgg mënuñu ko am waaw kon loolu dañ ko gën a sàmm gën ko aar ah. Ah, merci jërëjëf. jërëjëf. ci moom Sénégal teelu leen. dañoo war a teelu sax. boobu lañ bëgg ndax teelu dafa jot. man damay yàlla. fièvre bi mu nekk jamonoy koor bu tombeek événement bi passé dëkk bi yëngu lool Sénégal dëkku jàmm la may ñaan waa nguur gi di ñaan opposant yi di ñaan xale yi ak kilifa yi diini yi ñu dal li xew senegaal nii lu gënoon grave moo waroon ñëw kilifa diine yi jàpp ci muy islam muy Jésus ñépp jàpp ci Sénégal benn bopp la donc maa ngi gërëm di sant alhamdulilah mu tombek weeru koor affaire yi gën a calme Sénégal dafa xat dara xaju fi dafa tuuti dara xaju fi Sénégal ñu ngi suñu quatrième président quatrième président nga dem Amérique ñu seen quarante sixième président nga ni ñu rawee añ def ndànk loolu lay ñaan añ def ndànk muy xale yi mag ñi muy nguur gi kilifa diine yi añ def ndànk senegaal dara xaju fi dara ñëpp ay mbokk lañu war mi tey nu leen Sénégal tey borom yet du xeex ak borom fetal yéen dëgër bopp yi jaay sa bakkan la waa réew mi saylu leen yéen waa nguur gi saylu leen borom fetal du xeex ak borom xam-xam yéen dëgër bopp yi jaay sa askan la waa réew mi saylu leen kilifa diine yi tey leen borom xam-xam du xeex ak kun fa yëkkoon buur bi yàlla yéen dëgër bopp yi jaay sa diine la yii de ba nga fang lay taw jékki-jékki naaj am na lu tax bu naajee ba nga fang dootul taw jékki-jékki xiinaat am na lu tax buy wis ba nga fang taw bi dafay taxaw jékki-jékki di sóob am na lu tax. ne buy taw bala ko dinaa jee ah yàlla xamal tax kon teelu leen ñun bëgg ñu ngeen gaañoo almi tàggatoo ne weeru koor xam naa ëmma sonn na weer ba heure bi or ba heure bi buñ ko toppoon fi la fanaan waaye nag yërmande mais tey bés bëri la ci man ki làmb aussi nga xamal ne làmb ji a ko bokk toron bi kenn moomu ko day bouger ni ko yàlla bëgge noonu lay bouger ñaata mbër ñoo fi nekk trois trois fois champion ñaata mbër ñoo bëre ba dee duñu nekk jamais roi arène ñaata mbër roi de arène même bu ko nekkee benn minute roi nga roi nag c'est royal sama wax du sori ci kaw mi ci ma jaaxal trop te ëmma seen juraat trône bi na ma jaaxal lool yàlla moo xam kañ ak naka ak fan ak naka ñun xamuñu bu ñaari mbër di bëree xamoo kuy daan loo wóolu wóolu loo wóolu wóolu sa mbër xamoo kuy daan yàlla rek moo xam kuy daan ñaari mbër nañu bëree yàlla xam na kan mooy daan ñu xamuñu kuy daan añ def ndànk bëggante suñu biir ñaari mbër dañu war nekk ay mbokk bëggante seen biir sport moo leen boole. yàlla na jàmm yàgg Sénégal ñu wari ci jàmm korité en deux mille vingt et un yàlla mosul de Sonko affaire tout ça yàlla ci yàlla musal xaju fi dara xaju fi yàlla na jàmm yàgg Sénégal di gërëm Eumeu Sène quand parce que weeru koor xam nga rek da woor ba sonn sonn ma terewul ima bien accueillis on est très gâtés on est très content ñu mbay ñu leen tàggatoo ak benn morceau rek ba beneen yoon jaay fooy ama seen foo koy jëleet foo koy jëleet ku mel ni Khoudia Gueye foo koy jëlee ci ku mel ni Khady Diaw foo mel ni Landing foo koy jëlee ci ku mel ni Pape du TV mooy may bi Alaji Diouf Babacar Diom bonne fête Korité 2021 chez Eumeu Sène le roi des arènes bonne fête de Tabaski Korité ak Tamxarit yàlla na jàmm yàgg Sénégal